plateau bi di waxtaanee ni ngeen ko xamee xew-xew yi gën a fës ci ay bës bi dana jafe waxtaanee xew-xew bu gën a fës euh, lu dul euh, corona beeg euh, tolluwaayam bu ñu jàppee situation bi nga xam ne ci àjjuma ji muy yamook premier mai atum 2020 Sénégal romb na mille cas yi 1024 cas officiellement ndax 91 la ñu nemmeeku 658 jamono ji ñu ngi ci waa kër doctor 356 euh, daa di nañuy euh, wér ci feebar bi mu am juróom-ñeent yoo xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan alors bu ñu nee 91 ñoo ko am bees jàpp leen ne 88 yi cas con contact la ñoo xam ni waa kër docteur ñu ngi leen doon saytu bàyyi leen xel am na ñetti cas communautaire yoo xam ni ñoo ci rax. jamono ji tamit euh, ci monde bi lëmbe na fi 3 millions 257 mille ak lu topp am nañ euh, virus boobu pour waxtaanee ko ak euh, chiffre yooyu lan lay tekki ak bu ñu xuusee tuuti ci thème bi lekkool bi ñu jàpp ne ñaari fan ci weeru juin ba fukki fan ak ñeent dinañu dellu ndax yanu na maanaa ñu jékki-jékki affaire yi di yokkoo nii ñuy wax waxu delloo xale yi école danañ ci taxaw seetlu jàngat ko ak euh, inspecteur euh, d'académie euh, classe exceptionnelle macha allah tàmm ngeen ànd ak moom fii ci TFM Alioune Ndiaye ñi ngi lay nuyu. alors ñu ngi feggoog doc professeur bu ñu wàññi gradam ak cëram professeur Bamba Kane macha allah. Hmm. professeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Abdoulaye. alors euh, ñu am mbégte tamit ànd ak mu Moubarak wàdd moom moo jiite kuréel gi nga xam ni vacataires yi yëngu ci wàllu privé bi ñoom it impacté nañ bu baax euh, ci corona bi ci njàngal bi jàngale bi waaye it euh, ban gis-gis lañ ci am ñoom ci delluwaat ci classe yi dina am solo ñu déglu ko ci. alors euh, laaj bu njëkk bi kon euh, defe naa waa kër docteur lay euh, njëkk ñeel naka la ñu mën jàngatee ñu jékki-jékki xëy na ci diir gu yàgg ñu jàpp ne Sénégal ba 500 cas la ñu toll woon mais ci diiru benn semaine mu multiplié par deux ful ñaar ñi ngi ci mille ba mille vingt 1024 sax précisément loolu naka lañ ko mën a jàngatee ak bu continuer ni capacité hôpital maanaam waa kër docteur ni ñuy dalalee malaat yeeg yooyu. ndax euh, saturé wul maanaam euh, fi mu nekk nii dootuñu mën jël kenn ñuy nar uti pexe docteur yaa moom laaj boobu avant ñuy ñamal ñeneen ci waxtaan bi ñeneen ñi. waa jërëjëf Abdoulaye euh, effectivement loolu situation la boo xam ne situation bu préoccupante la ndaxte bu ñu fàttee ne au départ une vingtaine lañ daan lañ daan testé ba mu yàgg ñu yokk tuuti cinquante jëm cent. Euh, depuis semaine bi passé ñu passé presque kabu 500 yi tey ñu dem ba presque 1000 tests alors euh, li muy wane rek nag lenn la mooy que au départ ci li ñu base woon ñun ba suñu xel dal euh, ci ay données la yoo xam ne ne reflété wul woon réalité bi. ça hmm. c'est important le fait que ñu yokk nombre de tests yi gis nombre cas positifs yi gën a bëri day wane que ne virus bi mu ngi circulé bu baax a baax a baax ci biir biir société bi. bon man euh, damay faral di wax que nii situation bi nii la fait que euh, cas yi gën a bëri yokkul suma jaaxle wàññiwul sama jaaxle. Hmm. ni ma jaaxle woon laa jaaxle ba léegi te dama jaaxle. parce que bu ñu fàtte ne euh, nga def mille tests am cent yu positif moo yem képp ak nga def cent tests am dix yu positif. Hmm. c'est important c'est-à-dire que tey la fait que ñu yokk nombre de tests yi. wane na ban proportion à peu près le virus bi nekk di circuler dans la population donc loolu nag euh, li muy firnde wala li muy wane mooy que nit ñi dañu war a gën a góorgóorlu par rapport ak mesures yi nga xamante ne nii moom la ñu teg day wane que ni aussi bu ñu defoon tey dix mille tests on peut se retrouver avec mille positif te am na ñu dëkk yoo xamante nii sur une semaine dañuy dem ba def deux cent cinquante mille tests euh, waral cas yu bëri yi nga xam ne gis nañ ko loolu moo tax man. même dès le départ bi nga xamante ne amoon na benn genre auto autosatisfaction boo xam ne nit ñi ñu ngi ko doon wax Sénégal ñëpp wér nañu et cetera fii prise en charge bi ma ne leen dëgg la prise en charge bi baax na trop mais tant que defuñu test massif ñu xam réellement lan la lan mooy chiffre Sénégal tey bëri na ay dëkk yoo xam ne tey ñu ngi leen di kañ naan zéro cas la ñu am. ay deux cas la ñu am trois cas la am parce que tout simplement defuñu dépistage massif. Hmm. lii nag euh, effectivement indi na jaaxle tuuti parce que bu yàggee capacité d'accueil yi suñu hôpitaux yi dafay mujj dépassé wu complètement te ñu ngi ci bëgg àgg te loolu bu ñu si àggee situation bi ñuy dund déjà muy ñeneen yi nga xam ne yeneen feebar moo leen daal kenn talatu leen déjà loolu day gën a yokk. Hmm. mais mun nañu dem ba nga xam ne même cas wu coronavirus yi. dootu ñu leen mën a gérer au niveau des structures hospitalières. Mhm. mu nekk situation boo xam ne situation bu doy waar la. ok alors. Euh, ayca booba. professeur man en fait dama bëggoon dellu si waat léegi. Mhm. <clears throat> si bon ñu ngi quand même nuyu ñëpp ah nuyu suñu mbokk jullit yi di leen ndokkal ci koor gi parce que bi ñu fi jógee la dernière fois euh, c'était le vendredi donc euh, voilà ñuy ñuy ñaanal ñëpp kooru jàmm ah di ñaan que vraiment weeru koor gi ànd ak. vraiment liy gëlee li nga xam ne moom moo dal suñu kër ñun ñëpp suñu kaw ñun ñëpp donc euh, loolu am solo la li ma doon wax léegi moom mooy <clears throat> li professeur doon wax léegi. Mm. Euh, parce que bu waxee bu nee euh, bu ñu defee cent tests ñu am am dix yu positif dafa mel ni bu ñu defee. bu ñu defee 1000 ñu am san yu positif dafa mel ni bu ñu defee 100 ñu am 10 yu positif. Mm. mais dama bëggoon rek yokk si que ni quand si ñu testé. du du nit ñi génnuñu rek romb Bouba Ndour Abdoulaye Der et tout ça ne leen kaay ñu testé leen ñi ñu testé quand même c'était des des cas contact ñoo xam ne d'une façon ou d'une autre en tout cas am na nañu euh, jànkonte nañu ku am feebar bi wala jege nañ ko am feebar loolu je pense que précision bu am solo la parce que bu bu peut-être bu ñu bu ñu génnoon ci biti rek romb mille personnes testé leen peut-être que du ñu egg ci cent mais je pense que loolu précision bu am solo la mooy si ñi ñu testé aussi ñu wax ñan la parce que bu dee ñooñu dañu jegeyantoo woon ak ñi nga xam ne mhm. feebar ñoo leen dalal ça change dafay changer complètement approche bi quoi mhm. donc je tenais tout simplement à que mu éclaircir ñu si si si côté boobu quoi euh, mhm. waaw euh, non bu xam nga xam nga man euh, loolu soo gisee ma wax ko mooy que de le départ bi ma gisee attitude nit ñi maanaam nit ñi le fait que saa fonte wuñu trop ak mesure barrière yi nga xam ne moom lañ tegoon en place ma toog benn instant def benn observation parce que man aussi euh, maanaam tey spécialité bi nga xam ne moom moom laa am. muy mm-hmm. physiologie. Mm-hmm. dafa am benn affaire bu ci am solo mooy observation. Mm-hmm. tey jii nii bëri na loo xamante ne nii man ci observation laa koy teg ndax man damay faral di wax toujours sama étudiants ne su ma rombee ñaari xale ñuy xeex sax dama ci gis benn observation scientifique. li tax benn moment ma bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon proner pour que ñu def dépistage massif mooy que non seulement nit ñi saafonte wuñu woon propre ak mesures mais buuba euh, bul fàtte ne ci contexte bi ñu nekk nii dañ nekk ci contexte boo xam ne bépp signe benn manif bépp manifestation clinique dafa war a nekk lu suspect il trois mois man trois mois il trois semaines un mois gis nañ fi benn instant boo xamee ne presque amoon na benn épidémie de grippe bu fi am nit ñëpp di tisoo li nit ñëpp di sëqat man observation boobu noonu déjà ça m'avait fait peur je m'étais dit tant que ñu ngi dem sur une base de ay trente tests 40 tests 50 tests on peut passer complètement à côté tey bi ñu yokkee le nombre de tests on s'est rendu compte que ne effectivement la réalité est autre foofu laay waxee hmm. c'est-à-dire que le fait que ñu yokk assiette tests yi wane na effectivement que ni ñun ni ñu tëddee woon jàpp suñu jàmbur naan set test la ñu am un test lañu am tey deux ba benn moment sax on a senti que les gens ñu ngi commencé baisser les bras loolu laa wax ne loolu nekkuloon réalité bi donc actuellement réalité bi sànni nañu ko à la figure te il est temps ku ñu gën a dolli en fait euh, vigilance bi pour mañ a pour bañ a dem ci benn situation boo xam ne actuellement ñu si bëgg a àgg mooy lan mooy saturation structure hospitalière voilà alors Charles pour euh, première de parole on est à de 1000 cas et euh, cas yi dernièrement test yu mujj yi on est à 91 nombre yoo euh, chiffre yoo xam ni mosuñu ko atteindre est-ce de s'inquiéter waaw di moom rek ma def comme Bouba mhm. mbokk jullit yoo xamante ne ñu commencé le le ramadan si ay moment yu difficile parce que quand même Covid moo fi nekk ak tàngoor bu bu doy waar ñoo tam mbokk yi rek toute la famille Dembel Sow parce que xam nga que y a quelques jours rek dama ñàkk suma moo doon suma rakku papa daal euh, naka yàlla xaar àjjuna ba xoole ma jàllee toute ma famille Sow quoi boo xamante kaar ba États-Unis ab këpp fu nekk d'ailleurs xam nga professeur dafa am lu mu fi wax tant que euh, nit da ngay mën a da ngay analyser benn benn affaire mais bañ a fausser départ yooyu gis nga départ ga bu ñu ko amee les premiers cas quand de Covid au Sénégal son des cas importés mais ñoom ñëpp quatre bu ñu ay sénégalais comportement yi changé bokkut maanaam bu ñu xoolee le premier cas du koo xamante ne dañu dem détecté ko déet noonu détection bu ñu ko waxee tam détection day nekk détection passive doon détection active lan la ku feebar la mu yëg ko feebar na woo SOS médecin SOS médecin ñëw si la affaire bi démarré le 2 ñu annoncé boobu cas yu si tegu doon aussi exactement le même même affaire bi bu ñu imaginer woon mu demee leneen rek mu doon koo xamante ne si nu la jógee jaar aéroport bi kon tey ñu ngi wax leneen si cas communautaire on n'aurait pas du tout donc ça veut dire que bu ñu toogee xool approche bi mooy professeur lu mu wax approche bi le fait de d'augmenter lu dép kii dépistage ngay def dépistage massif boo koy def bien entendu kii bi dafay yokk bu ñu xoolee 10 pour cent man fan fan la ma tiital mooy que sur si on va sur 16 millions de d'habitants nga ne par exemple nga def benn projection nga def ko tu as 10 pour cent ça fait million 600 c'est aussi simple que ça si nous million six cent boo jël benn ratio moins moins ambitieux nga ne da ngay wàcc wàcce wàcc di nga wàcc ba cent mille ça veut dire à un pour cent tu cent soixante mille malades 160 000 malades dans le Sénégal dafa compliqué pourquoi mu compliqué docteur <laughs> professeur moom a ko gën a xam foofu le maladies parasitaires fii am na fii parce que man dëgg naa fi lu ne mais nag da ngay da ngay aussi dangay dangay da ngay sa couche ak maladie yu fi nekk il y a des maladies parasitaires xaw ma de quel ordre c'est est-ce que maladie parasitaire yooyu Covid xaj na si moom waxatuma asthmatique parce que bëri na fi defe naa est-ce que xaj na si ñoom maladie chronique yi est-ce que xaj na si ñoom ak yu demee noonu de la petite enfance ba xale yu gën a mag sans compter la malnutrition parce que dafa nekk loolu yëpp dégguma si ay étude yu ab maanaam man lu may dégg on est dans les généralités defe naa si moment yu nii lay gëstu di baax. parce que tam sa population da nga koy xam bu baax a baax a baax xam yan jàngoro lu ñu confrontel nga gën a mën a attaquer affaire boo xamante ne. mu ngi ñëw xëy na xeex contre moom dafay jafe parce que tout simplement suñu tissu social ak suñu tissu économique mayuñu ñu am yenn possibilité ne dañuy toog confiné wu parce qu'on est suffisamment riche ak yu demee noonu non fii boo jógul tous les jours génn moom day jafe foog nga génn loolu tax ma ne woon le port du masque il fallait y penser le rendre obligatoire non pas que dafa doon soigner mais dafa doon permettre nit ñi mu ñuy dox seen soxla yu demee noonu donc je pense qu'aujourd'hui peut-être que aussi aussi benn système écofavorable boo xamante ne le professeur Raoult laa wax te ba léegi je n'ai pas de réponse boo xamante ne satisfaisante à ce de ce point de vue parce que bu koy wax tam mun na am wax ko mu am benn lecture politique bu mu si war a am on n'a pas la lecture politique pour ne pas avoir à faire des dépenses ou prendre des décisions comme tubaab bi beneen affaire bi mooy que tant qu'on n'ira pas dans le dépistage massif wala semi-massif yu demee noonu on risque d'avoir des surprises et il des décès yoo xamante ne c'est ay nit yoo xam ne dañu décédé seen kër te coronavirus moo doon rey te bokk ñu woon fenn alors Malal bu ma doon wax choc de la semaine